jërë ngeen jëf mbokk site dakarmatin.com fas yéene nuñ koy ay bu chronique chronique le président de la république Macky Sall di tàmbali leen ay Nous voulons un Sénégal nouveau. Une république nouvelle. Oui, une république où ce drapeau aura le vert, le jaune, le rouge avec l'étoile verte. Une république refondée, basée sur des principes et sur les valeurs positives de notre société. Nous sommes des démocrates et des républicains. Dakar Matin. président kaddu yi boo gisee ma dégtalaat la ko lu ma ci jublu moo di waxtaan ak yow ginnaaw ba nga rotalee ay kaddu ne assise nationale lañ fa liggéey jëmmal ko ci réew mi du Coran du Bible. amaana ñépp ànd ak yow ci kàddu yooyu assise nationale xalaatu ay nit la yu àndandoo lëkkaloo réew mi rekk ñor leen woon ca waxtu woowu ñu ànd ak askan wi nat rëq-rëq yu nekk ci réew mi nan lañ ko war a jubbante lan la ci askanu senegal xalaat ba tax bu ñuy fàttaliku ci deuxième tour da nga daw kër ki nga xam ne mooy Amadou Mahtar Mbow signé charte des assises ba nga ko signé ba nga génnee bëggoon nga journaliste yi dar la ngir nga wax ak ñi tàmmee di dàkkantale peuple des assises na leen lépp loo xam ne bind nañ ko ci biir assises yi man bu ma jëlee réew mi naa fas yéene taxaw dogu ci ngir jëmmal ko waaye ba nga jëlee réew mi ku am seetlu di xalaat ci dëgg-dëgg xool ne yoon wi nga jaar pour nërmeelal li soqe ko ci assises yi dafa fës ndax commission nationale de réforme des institutions bi nga samp joxaat ko Amadou maxtar Mbow daanaka amul benn liggéey bu bees bu mu def déedéet la mu def kay mooy jëlaat ci assises nationales yi li nga xam ne moom liggéey yoon càmbaraat ko ba mu gën a wér ci bëgg-bëggu nit ñi ñu jëmmal ko ci rapport bañ la jébbal yaa leen joxoon ay termes de référence waaye sénégalais yi xam nañ mbir moomu fan la mujjee fan la mujjee mooy Ismaïla Madior Fall kon sa conseiller juridique ca booba ba ñu rapport bi moo njëkk def benn interview ci journal Le Quotidien yàq lu mel ni xeme rapport boobu nga xam ne commission nationale de réforme des institutions defoon na ko mu mel ni da nga leen sant liggéey ci bii boor ci beneen wàll ga nga utiliser ay nit tamit ngir yàq liggéey boobu boobule xam nañ fan la mujjee fan la mujje lu dul yow sa bopp yow yaa taxaw ne commission nationale de réforme des institutions jox nañ la rapport bi waaye da nga ciy tànn lu la neex da nga ciy tànn lu la neex ñu jàpp nag ne nguur boo ko yoree doo def lu la neex da ngay def li la war nguur boo ko yoree doo def lu la neex da ngay def li la war te fala budd ñepp d'accord nañ ci benn ponk muy ban ci ponk ba ñepp nekkon ay candidat ci élection présidentielle 2012 candidat yépp mengo nañ kaddu ci lenn modi république bi dafa nermelu faaw ñu suqaliku lu koy firndeel sa tour bi nga jox sa parti alliance pour la république te say kaddu sa boko yëkëté il faut que ñu la république ca palaasam mom nga doon faral di wax de président de la république. waye bañu ñu ngay doxal di dawal yor nguur gi bu baakha baakha baakha a baax a baax dafa dellu siwaat ci sunu xel sa bu la done meuse interpeller ci entre régime parlementaire ak régime présidentialiste do ci bëgg a ratal kaddu ben yoon da nga doon wax le débat et à l'interne dans mon parti mais buñu xolé bu baax baax da nga nek kenn ku bëgg présidentialisme fort manam un président de la république bo xamné day note ñépp tek leen loxo benn pouvoir do am benn cër bu mu wara def lu koy firndel 2012 ba 2018 tay ji est-ce que mën nañu wax né assemblée nationale bi am def na liggéeyam namu waré justice bi du pouvoir mi ngi def liggéeyam na mu waree. tey na xel kenn mënu koo wax dañuy wax ne assemblée nationale bi nga xam ne moo fi njëkkoon a samp Moustapha Diakhaté nekkoon fa président groupe parlementaire ñoom d'accord nañ ne assemblée nationale boobu moo gën a yées ci assemblée nationale yu mës a am ci histoire politique bu Sénégal rax ci dolli wax nañ tamit ne assemblée nationale bii nu mu tàmbalee ci levée immunité parlementaire xalifa Sall ak nu mu doxalee ci loi de parrainage bi kenn amul yaakaar ci assemblée bi ndax nag ku ñuy diri doo taamu fa la sondong di dal ña fa nekk ñépp député Macky Sall lañ du député peuple du Sénégal majorité bi lay wax ak te looloy dëgg président Macky Sall moo gën a xam nan lañ war a def ngir am assemblée nationale bu mucc ayib ci mode scrutin bi la mën a jaar xam na ko bu baax a baax a baax moo mu bàyyi nii li nga xam ne fi nekk ngir ñi fi jaaroon ñëpp ci président de la république ñu ñuy noté assemblée nationale mu wéy ba tey jii di assemblée nationale bii fu mu leen joxoñ ñu xool du majorité mécanique mais majorité automatique la. moo ne de kenn gënu koo xam république. ay ca ñu déglu ko lan la république. la république c'est des institutions fortes. la république c'est l'équilibre entre les pouvoirs. qu'il s'agisse du pouvoir exécutif incarné par le président de la république son gouvernement ou du pouvoir législatif incarné par la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale ou encore le pouvoir judiciaire à travers les cours et tribunaux. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque toutes les institutions s'effondrent devant une seule qui fait et défait selon son bon vouloir, nous ne sommes plus en république, nous ne sommes plus en démocratie. Dakar Matin. dem nga ci ba met Ablaye Wade damay wax ne histoire politique Sénégal xeexu démocratie Sénégal boo ciy bind téere lu mu bon bon met Ablaye dina ci amay ay chapitre yu baree baree baree bari ndax jàmbaaram ak taxaw pour Sénégal am démocratie ci xeex bu méttee métti bi mu tàmbale ci Senghor ba ci Abdou juuf moo ne de dàkkantele nga ko monarque lu ne wax nga ko lu ne traité nga ko déglul pense en républicain, mais n'agissent jamais. Agissent plutôt en monarque. Cette exigence de penser et d'agir en républicain que je considère comme axiologique, vous savez, l'axe, c'est la direction principale qu'on donne, est devenue dans notre pays une urgence, une exigence qui est devenue une urgence. Aujourd'hui, en effet, sous nos yeux, la République se dérobe, elle est transfigurée, elle est dénaturée, par de multiples pratiques qui sapent ses fondements existentiels. Dakar Matin. yow ya dañ wax né delloo république urgence la ci deug deug assises nationale yi ku rapport bi début ba fin liñ gën a liggéey mooy fexe ba am république bu dëggu bu pouvoir exécutif di def liggéeyam na waré. pouvoir législatif di def liggéeyam na waré. pouvoir judiciaire de di def liggéeyam na waré pouvoir exécutif du bolé ñaari pouvoir yoyu téye leen tënk leen jatang leen ba nga xamné danaka pouvoir mo am Sénégal pouvoir exécutif rek mo fi am tey bilan nga mën tirer ci say promesse l'une de mes premières missions ce n'est pas de construire des routes des autoroutes et des ponts la première mission c'est de reconstruire l'état de droit L'état de droit, on va l'apprécier de façon immatérielle. Ce n'est pas un bâtiment qu'on verra pour dire ça c'est un état de droit. Mais ce sont des valeurs. Ce sont des principes. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. C'est la lutte farouche contre la corruption et le népotisme. nañuy doxalee ak yow dafa mel ni sax weguñu la te respecté wuñ say kàddu barki Demba pale palais présidentiel bii ŋañ ceeb lay war Wade lu baree bari waru fi réunir waru fi indi partem yow ba nga tàmbalee yaa ngi leen yóbbu sa parti ay réunion teeru beeg secrétariat exécutif national léegi sa yoon nekkutu ci ñu dem ci ba say étudiant dugg ci biir pale bi di xeexoo ak gendarmerie ñu suwe parce que palais du lenn lu dul mit du rafet du dara. mais Il jaadu quand même ñu sacraliser yenn espace yo xam état bi lay jëmmal tay buñu démé ba say étudiant am fit dugg ci bir palais bi suuyee ko moo ne de lu né wax nga len ko ñu déglu. certains comportements je condamne très fermement et je souhaite je souhaite qu'on arrête ces comportements avant de nous amener à prendre nos responsabilités. Ce parti a été créé, Diane Farba l'a rappelé, dans la douleur et dans l'engagement des hommes, des femmes et des jeunes qui ont voulu défendre les valeurs de la République, qui ont voulu protéger la démocratie de ce pays. On ne saurait accepter des comportements qui vont nous ramener en arrière la violence, l'insolence, l'insouciance seront combattues férocement et je mettrai les dispositions qu'il faut pour que tout responsable, tout responsable, s'il vous plaît, jeune ou adulte, qui travaille à faire perdre le parti soit sévèrement puni et sanctionné. Dakar Matin. Respecte un sa kàddu bale passé lire na suñu mak Madiambal Diagne mu ne les colères de Macky ne font plus peur mu bind ko ne de yow xam nga bu ne lenn ci te jëmmaluñ une république un état véritable bu am pouvoir yu séparé wu xam nga ko yañu ko wax mi ngi tant que nous n'avons pas un état de droit tant que la démocratie n'est pas viable, tant que l'État ne fonctionne pas selon des principes républicains, tout ce que nous voulons construire, nous ne pourrons pas le faire. ba ngay doog a Ngour, taxaw nga fii am étude bu UGE de ba ñu noppee jébbal la nga ànd ak premier ministre ca booba Abdoul Mbaye rotal ay kàddu ñu déglu. tout ma changé dara dara ci objectif bi ma am muy redresser réew mi quel que soit nak opposition yi may dajal wala volonté de résistance yi nga xam ne dina nekk suñu kanam danañ ci teg yoon bi réew mi ci yoon kooku moom ku yebu xam ko danañ ko teg ci yoon yoon bi ñëpp la fi nekkal aussi du am citoyen de premier rang ak citoyen d'exception faut que loolu leer ku bokk ak man parti ku bokk ak man coalition ku nekk opposant ñëpp ci bokk yem la loi sera égale pour tous te loolu que ñu euh, falaat ma bañ ma falaat ça importe très peu man si mission la nekk. Dakar Matin. lan moo soppeeku. lan moo soppeeku ci diggante bi. lobby yi dañ la jël en otage. obsession second mandat de ci dugg signé nañ ay contrat yu doy waar yoo xam ne falaa budda faaw ku la wuutu càmbar ko yàlla na la nag nga maaseeg jamono ñi nga xam ne ñëpp dañ la bëgg a wuutu nga xam ne du am lenn lu lay ragalee wala lu lay rusé doo jóge ci nguur nekk màgget magal lool comme met Ablaye Wade nga xam ne sañoo ko def dara yow boo jógee ci nguur lu ne mën na la ko toppee loolu yëpp nekk ci ba tax na tey nguur gi dafa mel ni fitna da cee laxasu boo jógee dal ci benn boo jógee dal ci benn foo dem tiitaange dugg si yow kon la nga daan wooyee politique de ruine nationale mi ngi woy ba tey te loolu mooy préalable réew mi ngir ñu defar ko faaw ñu njëkk a defar ay institutions yu am doole ni ko Obama doon waxee ngir président du fi nekk nekk roi di buur di bummi lu ko neex mu def ku mu neex mu du ñu dara say kaddu la ñuy di leen sant di leen gërëm leen dig site dakar cette politique de ruine nationale il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme. pesum kanam borom mokoy fayul crime la perversion des mœurs au point que que kuy gor ñu jëma yak sa la nga am dañu ne xar yi nekk ci daral ba ak yi nekk

wala ki ñu bëgg mu falu